asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 26 septembre 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi mel ni ki nag yëglikaay yi tey sunu lamb fa la ñuy xëyati yëglikaay bi nag dafa xëy tey ñëw wan ñu ci xëtam mu njëkk ay mbër yoo xam ne day yu mag lañ ci làmb ji Balla Gaye numéro 2 gis nañ ko Tapha Tine Boy Niang Sa Thiès ba ci rëg-rëg waaye bu dee ki nga xam ne moo di rëg-rëg moom am ndëndam la gàddu mel ni ku koy sampali ki nga xam ne moo di Sa Thiès ngir fas yéene laale ak moom waaye nag ka nga xam ne ni day moo di lees di bàyyi Sa Thiès mu ngay wax ak rëg-rëg nee na ko daal li leer ba leer day sa diggante kii nga xam ne mooy Sa Thiès moom nekkul sax loo xam ne nii lu ñuy waxtaane la maanaam daal doo loo xam ne nii luy nekk la ci jamono jii moom moom lees daal nee na daal li leer ba leer moom rëg-rëg Sa Thiès bëriwut moom tey bëriwut ak moom suba wala bokk du doon ci ji jamono nga xam ne ci la ñu nekk loolu mooy waxi lees mel ni kon lees daal jël na caabi ja nga xam ne nii daal bu moo ko yore biir Reug Reug Sa Thiès jël na caabi ji tëj buntu ba sànni ko géej moom daal waxul wax jooju moom leneen lay na loolu moom ku koy a xaar ca kanam la bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye magi Sa Thiès itam di Balla Gaye 2 lees wax na ci moom ci adversaire yi koy tuddal moo xam Tapha Tine la wala Boy Niang lees na ne loola moom ci Balla lay dépendre moo yor ci gël guyam lu ko neex mu choisir ko ci su ko neexee jël Tapha Tine bu ko neexee jël Boy Niang loola moom leer na nañ lees a xëy wax ko fii nga xam ne mooy ca sunu làmb ñii moom seeni mbir boo bëggee dëgg-dëgg ah daa mel ni daal mën nañoo feccu ndaw rabbin muy waa écrit yoof ba nga xam ne mot ja mën nañ ne moo ko jiite wala malik Niang bokk yëglekaay bi ne li leer ba leer day di combat yi ñoo am am nañ ca vite victoire ak deux défaites mel ni ki nag écrit yoof booba daal boo bëggee dëgg-dëgg moom lañu am ci ay combat ah mingo nag loo xam ne daal lu jaar yoon la waaye jubluwuñ leen boo bëggee dégg-dégg yëglikaay bi moo xëy ñëw wax ñu ko seen tête de file ba tamit di Malick Niang moom suñu lam ne leer ba leer day moom la mu teglante daal mooy année balance am ya nga xam ne ca la nekkoon moom la continuer di ca ne mot ja nag daa mel ni moom ba mu ñëwee wane na boppam ci saison bi daan ki nga xam ne moo di kéwél jënd bu rëy rëy moo tax yëglikaay bi jàpp na day est ce que nekkul benn leader boo xam ne nii moom moo juddu ca yoof di ki nga xam ne moo di mot ja ki nga xam ne nag mooy gin béb Birahim ak ki nga xam ne jabel lañ koy wax day tey bi na ay leet naa lañ yoo xam ne day def nañ exploit boo xam ne bu rëy rëy la ba tey ci fii nga xam ne moo di écrit yoof waaye caatu ñëwel moom am saison saful suukar saful xorom ndax dafa daan ñu daan ko yëglikaay bi ñëw na ci ñoom ci moom moom di caatu njëwal wan ñu ko sekk ndaanaan ak ki nga xam ne ni day mooy ak waa làmp ak kaca ñoom itam day ay vainqueur lañu yëglikaay bi moo xëy wax ñu ko saamu yabooy tamit wax nañ ci moom mu mel ni ki kon daal écrit boobu moom jàppal ne mu ngay dox keneen koo xam ne moom mu ngi doxle di ki nga xam ne moo di Tidiane Faye numéro deux yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko mu mel ni ki daal ay exercice am moom mu ngi koy dox di ko doxal di ko teg ci aw yoon moom professeur bi nga xam ne day mooy bu ndaw bi jël boppam tuddee ko tiijan Faye ma mag ma ca Lamsaar waaye leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko muy combat boo xam ne day taxawalati nañ ko muy combat espoir ka ko def nag moo di kii nga xam ne nii moom moo di Serigne Modou Niang borom mu Niang production ba nekk ca Bawol day la ñu boole ki nga xam ne moom moo di Sa numéro 2 yëglikaay bi xëy na tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye leneen loo xam ne day yëglikaay bi wax nañu ko bu fekkente ne kii nga xam ne nii day moo di Double Less bëggul ki nga xam ne moo di Sa Thiès jamono ji mu laal ak Reug Reug jamono yooyu moom suñu làmb nee na li leer ba leer day lig Nicolay fu ne moom fay jaar ngir utal Reug Reug adversaire yëglikaay bi xëy tey wax ñu lu mel ni noonu waaye leneen loo xam ne ni moom dañ cay dem ca Kaolack mu mel ni ki nag foofu moom coow moo fa juddu fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg te ka nga xam ne moo di Bira Sène ma yore CRC ba ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéey lool la ñuy coow nag jàppal gis nañ ca ku nga xam ne nii day ne moom mooy Lamine Dia nekk premier vice président wu CRC ba yëglikaay bi wan nañu ko li leer ba leer nag ne ne ni day nañ koy doxale leerut transparence daal zéro li nga xam ne ni nag mooy ay compte yoo xam ne dañ koo trafiqué ak ay galaadu yoo xam ne day ay galaawu lamb simple la yoo xam ne day li leer ba leer daal mbirum clandestin moo ca am wala boog mbir moo xam ne daal buñ koy def dañ koy laab duñ ko teg ci li nga xam ne moo di sart yi nga xam ne moom la war a am ak tamit mbirum malversation maanaam daal mbirum xaalis yu nekk nii ak ay mbir yoo xam ne yu doy doy waar la moom mu nga am Kaolack coow la nag mu nga ne gàdd ci diggante Bira Sène ak ña nga xam ne ñoom la àndal di liggéey liggéey ba wala waa Kaolack ak ay xaas yoo xam ne sax dañ koy dagg ci li nga xam ne ndey moo di kase liggéey te mbir mbir ya daal lenn lu ci leer amu ci ki leeral moom te nekk ci mbirum làmbi simple jooju moom moo di ki nga xam ne moo di caaka fay yëglikaay bi nag xëy na tey wan ñu caaka fay la nga xam ne am na ko ci saison bi nga xam ne moo jeex moom caaka nag juróom-benn galaa daal yëglikaay bi di sunu làmb ne na jël na ko ñeent final tamit li nga xam ne ni moom mooy caaka fay final na ko waaye ak ay demi final tamit ka def def na ko lu toll ci ñeenti demi-finale waaye da koo ñàkk waaye yëglikaay bi ne nag li mu am ci xaalis daal toll na ci trois millions trois cent cinquante mille francs ci saison bi nga xam ne moo jeex ak li nga xam ne ni moom moo di juróomi nag moom mi nga xam ne nag moom moo di caaka fay mu mel ni ki nag daal kon caaka fay moom lambi simple am ji passé saison bii jeex day ah daa mel ni nag maar neex na trop trois millions trois cent cinquante mille nga gagné ko ci saison ak juróomi nag loo ci mën a dégg am na solo waaye la ma leen waxoon rek bu leen ko fàtte te bu leen ko jaawale suba yaakaar naa mooy la le 27 septembre ci atum 2019 Masaalikul Jinaan la ñuy ubbi muy jumaa ju mag gi nga xam ne nii day moom la Serigne Touba Cheikh Mountakha Mbacké di inaugurer suba di xalifaam Cheikh Ahmadou Bamba kon ñuy ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg waaye di ko ñaanal xalifa yépp ak sax chrétien ya ndax nag jàmm ci la lépp xaj yàgg fa muy jógee.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 dañuy waajal li ñëpp di waajal mooy ubbite masaalikul jinaan suba di ñaan yàlla ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te lépp lu ñu fa ñaan rek yàlla na doon njëriñu àddina mais rawatina réew mi nga xam ne moom lañu ñu ne muy Sénégal Amin Babacar Babacar tey ñu ñëw si euh, sunu lamb ak euh, Leewtoo point net sunu lamb tey dafa xëy da dalal ki nga xam ne mooy Double Less Double ko déggee mooy doomu ba euh, mooy Pape Balla ak Pape du Sa Thiès ñëwoon nag tey si combat Sa Thiès ak moom daal nee na si si gis-gisam. Sa Thiès ak Reug boobu noonu du nekkul nekkul ci seen plan mais tëj na tëj na daal porte bi mais peut-être xëy na nee na ci jëmm jamono ñoom naan ñoom ñaar mën nañoo bëre. waaw maanaam daal moom fi mu nekk nii dàqul seenu bëre waaye du ci jamono jii waaw loolu nag d'accord naa ko bu ko neexee am na droit ne sama doom wala boog Sa comme moom mooy manager du bëre actuellement nii ak rëg-rëg parce que xëy na am na raison yu tax mais nag xëy na dàqul ne jamono dina ñëw ñu bëre jamono jooju nag mën naa nekk. saison prochaine mën naa nekk après saison prochaine tout est possible parce que loo ci mën a dégg moom moom lees bi nga xam ne moom mooy wax ah moom mooy seen mooy wéyjuru Sa Thiès moo koy menacer ci wàllum làmb kon yaakaar naa ne fi mu nekk nii su toogee ba tax mu xëy tey mu ne du jamono ji la ñuy bëree ak moom moom Reug Reug tëj porte bi ah loolu itam yaakaar naa des ko koy nangul waaye itam fi mu nekk nii Reug Reug moom li ma xam mooy tey ku bañ a bëre ak moom nii actuellement itam ëllëg xalaat naa di nga bëgg bëri ak moom parce que li tax mooy loolu du lu ñu koy sos lu ñu koy jeté ay fleur wala lu ñu koy sosal mais lu mu liggéey la lu nit ñi gis la lu Sénégal yëpp tegal seen bopp seen bët la muy mbër moo xam ne actuellement euh, xam nga li gën a garaaw ci mbër mbër moo xam ne ku ñu ko booleel ñu ne mbër ma da koy daan te bu ñëwee daan mbër ma avec la manière rëg rëg di doxee noonu bopp ba tey kon yaakaar naa fi mu nii daal nit ñi nag bu ñu demee ba naan digganteem Sa Thiès di ko a guy gi wala digganteem ak Yékini Senior wala keneen ak keneen ah kon dafa mel ni am na luy xeeñ ku mu neexee nag am nga droit yor sa mbër ne kat man jamono ji bëriwuma ak yaw yaa ngi dégg waaye li may bañ daal nit wax ko mooy dootuma bëri ak diw wala du ma bëri ak diw loolu moom erreur la bëreeguma ak yow daal parce que raison yi moo tax raison yi tax bu ko defee bu keroogee bu ëllëgee bu raison yow doon wax ya nga doon wax bu su fa jógee su ngeen bëree kenn du la ne nangam ak sàngam. da nga ragal jaan màtt Eumeu Sène jaan màtt yeneen bëri. waaw xam ko mu wax mais la njang moom moo wax du Eumeu xam nga itam Eumeu Sène man amuñu lu nga xam ne war nañ ko ko wax parce que moom la mu waxoon lañ mujjoon a dégg ci kàddu mooy dootul bëre ak Balla Gaye numéro 2 dootuñu bëre diggaatuñu fenn ci làmmiñam mu ne damay bëre ak Balla Gaye numéro 2 la njang nag moom moo wax mooy porte parole taay si nga ah moom itam la mu wax ñun seeti nañ ka nga xam ne moom mu jëli woon lanjang di ibakan bi wax ji jóge moom am na lu mu ci leeral vidéo bi nañ ko suivre ci Leewtoo TV dégg moom la nga xam ne moom mi jëli woon lanjang la ko lanjang wax waaye nag encore une fois rek ñu ñu xam ne que du Eumeu Sène la ñu nangoo ci kàddoom mu ne damay bëriwaat ak Balla Gaye loolu leer na Babacar Double Less aussi ñëwaat na si combat si pro si prochain adversaire yi nga xam ne yaakaar na doomu mën na bëre ak euh, kii ki nga xam ne mooy Balla Gaye muy Tapha Tine nee na wala wala Boy Niang nee na daal euh, Balla Gaye mooy choisir. waaw loolu foofu moom boo déggee ni mu fexe da ngay ja kon da ngay xam ne ñooñu mën nga ne presque ay adversaire u Balla lañ parce bu dee Tapha la mook Balla dañu war a mën a bëriwaat revanche parce que Balla da ko daanoon ñu ngi doon tax dox seen combat su ma ci li ma dégg mooy problème xaalis moo moo téewoon combat bi bu dee Boy Niang la tamit yaakaar naa ne Balla war na ko mën a gëstu bëre ak moom parce que am na lu mu def ba yegg si fi mu yegg si tey kon tamit xale la te champion la damay wax ne eh, làmb ji eh, il faut. tamit ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppe ay xale te man pour man liggéey nañ ba yegg si gars yi nangu leen jël parce que am na loo xam ne bu ñu ko defoon rek grand contre petit dina neex trop Balla Gaye de bu jëloon Boy Niang exemple Modou Lo jël Ama Baldé yaa ngi dégg rëg-rëg am si ñoom am ci ñoom Bombardier jël ko wala Gris Bordeaux yooyu day nekk ay làmb yoo xam ne nii yu neex a neex lay doon Sa Thiès a ngi fi guy gi ñoom ñu ñëpp ay Yékini si ñor gars yi ki yéen bëre ak ñoom ay Papa day neex trop mais nag lees comme li mu wax noonu itam ah waaw ak kon Balla mooy soo assir kon Balla na tànn entre sa entre Tapha Tine wala ki nga xam ne mooy Boy Niang numéro 2 ba xam kan la ci Balla war a mën a bëreel loolu moom xam naa soreetul dara ndax léegi saison bu ubbi promoteur yi ñëw commencé taxawal surtout combat yi mag yi mer parce que combat yi ndaw yi moom euh, promoteur yi ñoom ni ñu commencé tëgg combat ndaw yi Babacar suñu jógee nag euh, fi nga xam ne mooy buun fi nga xam ne fa la dubalees dëkk nu dem nag ba Kaolack Kaolack daal cooba daal ba léegi mi ngi fa ki nga xam ne tey mooy moom Mamadou Dia premier vice président wu CRG bu Kaolack moom daal ñëwaat na si xaas bi nga xam ne nee na ki nga xam ni Bira Sène mooy président CRG bi moom daal moom la luubal wax na daal ay ay ay raisons yu tax ñu ne Bira Sène dafa war a jóg ci kaw président wu waaw loolu la ki nga xam ne moom mooy euh, Lamine Dia wax ah. Lamine Dia waaw moom mooy premier vice président bi ah comme li may wax rek parce que démb waxoon naa ko wax moom sooy wax da nga naan man mii la maay wax diw mii laay waxal su ko defee nit xam ne yow yaay wax moom Lamine Dia nag la mu wax ci ne ay malversation ak ay mbirum lis xaalis yoo dañ koy jël ci licence mbir te leerul ak. xam nga ay trafiquant wu ay contact affaire yu mel noonu loolu lépp nag yaakaar naa ne su dee am na du lu tege ci aw yoon ndax li ma waxoon démb rek laa lay waxaat tey nit ki moom bu ñu la dénkee loo xam ne ni yow mbooloo moo ko moom wala ëpp dëkk ko moom lañ la ca digal wala lañ ca war a def mooy nga teg ko ci siraatal mustaqim teg ko ci yoon ku ci ne lam ca am nga jox ko ko yow la nga ca am nga jël ko la ca mbooloo mi am nga nga teg ko ku nekk jël ca ciram parce que loolu pour man noonu la ñuy war a lu nga xam ne mbooloo moo ko moom waxuñu ne nag di war def wala diw deful parce que ñun mënuñoo dëggal wala ñu weddi déedéet ñoom ñoo yore seen CRC ñoom ñu wax Birane nag démb ci li ñu gis moom ne na loolu ñuy wax amul yaa ngi dégg moom loolu la wax waaw te te waxaat na ko tey kon ça veut dire kon fi mu nekk nii xëccoo baa ngi seen diggante ñoom nag ay mag yàlla yi jëm la ñu pour man ay kilifa la ñu ay responsable la ku lañ la dénk moom ma ñu dénk dee def na xam na ne def na bu kitee conscience dina xam ne moom def na wala deful parce que ku wét xam sa bopp wala foo ko wax ñoom ñi koy jiiñ tamit bu fekkante ne lañ koy jiiñ dëgg la ñoom bu ñëwee dinañ xam ndax liñ koy jiiñ dëgg la wala dañ koy wax ni rek ngir fexeel ko yooyu bu dee wax nag ngir fexeel nit la moom loolu dara jaru ko ci àddina bëgg a jël place rek warul tax ngay wax sa moroomum jàmm wax bu ñaawal nga ko sosal lu nekkul waaye ñu dénk la itam tegoo ko ci yoon itam defe naa loolu itam dara jaru ko kon daal la ñoom liñ leen xamal mooy ñi nga xam ne ñoo yilif làmb ji muy CNG parce que yaakaar naa CNG moo yilif rek moo moo yilif làmb Sénégal yëpp kon docteur Alioune Sarr ak équipe ñoom ñoo war a nag asir dugg ci mbirum Kaolack moomu régler ko définitivement ñu xam ku ci ne lan moo ci sa responsabilité ñu teg ko ci yoon. ok Babacar suñu kaw la nag dañuy dal dañuy wàcc si yoof Yoff nag def nañ seen bilan nee ñi reñ am nañ diis combats. huit victoires deux défaites nee nañu daal Yoff li ngi fecc ndaw rabine foofu ndax dañoo kontaan si seen bilan. waaw ndaw rabine de moom suñu mbokku lébu yi ñu leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa Yoff yëpp ah, di leen ziar Yoff nag suñu fa duggee faw ñu nuyu lu xalifa laayeen bi parce que du mën a ñàkk maam Ablaye Thiaw di ko ñaanal gudd fa nag wér ah bu dee nag seen écrit boobu nga xam ne moom mooy écrit Yoff ci wàllum làmb ji moom dafa def dix victoire dix mënoon na gën a bëri mais nag kon loolu moom mën nañ leen lu positif la kon xam naa xay na moo tax ñuy fecc ndaw rabin bi saay na <laughs> noonu la demee waa Yoff ah gis nañ ko mel ni moo jaren wane na boppam ak yeneen xale ñoom gin ñoom ñëpp boo xoolee parce que seen mbër yi parce que ñu ci bëri ñëpp mën nga ne ñoom bébé Birahim am nañu ay ndam xam nga bu dee ki nga xam ne moom mooy euh, caatu ngéwél la dafa daan dafa mu bëriwaat. daan kon loolu moo lay wane daal ñoom itam yàgguñoo judd muy écurie Yoff waaye vraiment ñu ngi ci liggéey boo xam ne nii liggéey bu ama am solo la di wax tamit seen tête de file ne ko nag lan lay xaar Malick Niang juróomi saison blanche la. waaw loolu nag ëpp na ah wala bu dee dafa bàyyi itam wax ñu ne daa bàyyi mais daal vraiment war nañoo xam moom parce que ñun seeti nañ ko seeteeti ko xaw ma nag parce que ay adversaire am ci làmb ji ne gàññaa ndax Malick Niang Garga Mbossé dara dàqu ko Malick Niang Forza dara dàqu ko ak Malick Niang yeneen yeneen adversaire bëri na ñu mën a bëreel actuellement si làmb Babacar suñ jógee nag si suñu lamb nañuy dem si Leewtoo point net Leewtoo point net li ñuy xamal ni que euh, arène bi euh, CNG nee na saison bi le 15 octobre lay ubbi Ngor Sène mu nee na moom le premier novembre lay organiser premier gala de lutte fee si Adrien Senghor mais li mu doon ñaan daal CNG mooy na CNG bàyyi comme que licence yi des fois du teel a pare mu bàyyi daal nu nu bàyyi leen nu bë mbër yi ñëw bëri ak licence yu nga xam ne licence daaw la mais loolu nga xam ne wax na ko. Euh, Raymond Diouf daal neen loolu du si dal balaa mbër di bëri il faut mu am licence yu bees Babacar. waaw parce que ah bu fekkente ne daal moom Ngor Sam loolu la bëgg maanaam le premier novembre gala bu njëkk am Adrien Senghor si saison bi ñu jë dëgmal te li muy ñaan mooy ñu bàyyi leen ak licence yi nga xam ne moom lañ doon bëree en attendant yee pare ah loolu nag ñaan la ñaan nag li ngay ñaan comme moomoo ko ñu ngi koy ñaan itam ah, dañ la koy nangu wala ñu bañal la ko rek gisoon nañ ko nag at yi passé balaa licence yi lay pare ñuy bëri licence yi ren nag xëy na seen sa est-ce que kon dafa taxaw ngir ne loolu du fi am bu ko rema waxee rek xam naa kon loolu ci kilifa yi la jógee parce que ñun ñoo yilif CNC bi loolu nag mbir la boo xam ne nii tamit kon ñoom yi nga xam ne ñoom ñoo ngënk tamit di CNC ah lañ leen di wax rek comme saison bi ñoom yi nga xam ne ni ñoom ñoo war a am licence ñu jox leen ay kii ñu ñëw renouveler seen licence yi mbër yi tamit am ñoo xam ne dañuy toog toog ba yi ngay doog a daw di jëkkanteeg yooyu te yooyu yëpp mën na ñàkk bu nee ubbi na war nañu renouveler yow demal fajaru renouveler sa licence parce que nag daas fanaanal la ñu wax moo gën a wóor loolu gën a wóor Babacar nu jeexale aussi tey euh, Leewtoo TV mi ngi jëm fee xam ne mooy jàmmalaay am na présentation bu fa am Babacar. waaw waaw ki nga xam ne mooy Pape Yékini di promoteur bu bees moom moo fa ñëw indi leen tëgg xam na ci ki nga xam ne ni nii moom mooy Clémenceau ak yeneen combat yoo xam ne ni daal war na ko présenter fi nga xam ne ni tey moom moom mooy ca jàmmalaay di promoteur bu bees Pape Yékini comme ni ñu ko ñaanale wu ñu leen promoteur yi rek ñoom Pam Cham production ay Lay Ndiaye ak ñi nga xam ñooy idaaleeg ñu ñëpp nga xam ne jamaïcain daaw ak ren la ñu ñëw ci làmb ji dañ leen di ñaanal rek xam nga waaw ñu yegg seeg jàmm te li leen tax a ñëw yàlla nañu gis lu kawe seen jor ci loolu daal Amin Babacar si kàddu leen tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu aussi euh, Astandine DG Brahma depuis Italie Chéri Khadija Diallo di nuyu samay doom Penda Mam Diara bébé Fallou bébé Rokhaya Junior yaa ngi si biir Eva Diallo aussi yaa ngi si biir nuyu Aïda ak Aïcha Faye naan ko excel ak jàmm ndax ñëwaat na. ay waa di ko ñaanal jàmma ah, di ko ñaanal babem boobu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu suivre ci Leewtoo TV mais Malick moom arbitre tam duñ ko fàtte moom suñu soppe la suñu lépp la ñu koy nuyu di ko ziar xam nga di nuyu sama xarit coach su jabong depuis France moom itam du ma ko fàtte yoon di ko ñaanal jàmm xam nga ki nga xam ne nii moom moo di Youssou Ndoye l'international Sénégal de basket maa ngi koy nuyu ak suñu wayjuru ne suñu yaay Penda Diawara di ko nuyu di nuyu magam Mami Ndoye di nuyu famille bi yëpp xam nga di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre mais tamit di nuyu groupe bi nga xam ne ñu waa Africom rawatina nag sunu làmb ba nga xam ne ñoo fay def làmb parce que démb dem nañ fa euh, doon fa def benn kii benn liggéey mais vraiment daal nañ leen fekkee moom liggéey ba macha allah set na sell na te yaakaar naa itam ñu ngi koy teg ci yoon ndax fekk nañ leen ci machine yi ñu concentré wu mel ni ki kon rigueur ba mu ngay dox di nuyu équipe boobu yépp ñoom Dembélé ak Iba Kane ak Boubacar Niang Mbuub ak borom Assane <laughs> ñu koy nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ci Leewtoo ñoom tuuti yaay Sarr Khady Rose ñu fàtte kenn ak fu waay mën a nekk rek ñu ngi leen nuyu di ñaan yàlla daal non benn sama dem kook suñu nit la suñu doomu ndey la ak fàllu ñaa ca Maroc Seydou Diédhiou tamit duñ ko fàtte ko nuyu bu baax a baax borom logistique bi ci Leewtoo TV wala ci Leewtoo production boog ñu koy nuyu ne ko nag na yokk logistique bi Seydou daa war a gaaw lii moom wax la logistique bi na rapide encore une fois Thialis yaa ngi dégg li may wax Seydou jaw yaa ngi koy dégg. daa war a def nii kabum na gaaw di nuyu ñëpp di ñaan yàlla daal suba àjjuma la masaalikul jinaan ñu ubbi ko ci bismillah rahmaan rahim julli fa jumaa ci bismillah rahmaan rahim te lépp nekk jàmm xéewal ak barke ci barke yonante bi sallallahu alayhi wa nuyu nañ Sénégal yëpp balu ñëpp ak ñaanal ñëpp jàmm nday Kumba Fall ba suba incha